أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ koy defee samedi bu nekk ci waxtu wi ñu ànd ak yéen fàttalante ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ñi ngi ba tey suratul baqara di jël tey aaya 163 ba aaya 164 mu nekk ñaari aaya yunu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal juróom benn mbir ñaari aaya yi nekk sunu kanam boroom bi subhanahu wa taala mu ngi ci xamal juróom benni mbir yu ab julit war a xam fas ginnaaw ginnaaw ba nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala waral na ci kanamu kaw borom xam-xam yi ñu leeral xam-xam leeral diine ji mu araamal ci ñoom nëbb xam-xam ci la leen wax ne juróom benn mbir a ngi nii yoo xam ne ay aaya la ay màndarga la màndarga yoo xam ne ku ko xool ci univers bi daf ko ci gis benn bu ci nekk day wane dog gu mat sëkk day wane xam-xam bu wér ne subhanahu wa taala sunu boroom ku am la waaye ku am kàttan la ku am xam-xam la ku xereñ la borom yërmande la moom allahu subhanahu wa taala moom dong moom lañu war a jaamu juróom benn mbir yooyu yàlla dañu jàngal ci ñaari aay yi bi ci njëkk mooy xalqu samawati wal ard bind bi yàlla bind asamaan ak suuf wa huwa xalqun azim te muy bind bu rëy bu màgg laa yaati illa lil qadiri alladi laa yajizuhu shay asamaan ak suuf mbokk yi buñ koy xool danañ gis fekk xam ne ku dul sunu boroom subhanahu wa taala munoo defar asamaan munoo defar suuf nit ñi li ñuy kannasu kannasu wootekat yi li ñuy woote woote naan maa mën lii wala ñu naan diw yàlla la wala diwa mën lii wala diwa mën lépp ba àddina bi tàmbalee ba léegi déggaguñu ko ne maa defar asamaan si wala mës ngeen ko dégg kan seen moo ko mës a dégg woote yi li ñuy bare bare bare bari doo dégg mukk ne ah maa defar asamaan mukk parce que kooku moom yàlla rek moo ko yeyoo yàlla rek moo ko mën yàllaa ko moom moo tax mu ne aaya bi liñ ci njëkk a jële mooy ci juróom benn mbir yi ñu yàlla di won ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki bind mooy ki sàkk asamaan ak suuf ñaareel bi mooy ixtilaafu leyli wan nahaar juuyale wuutale gi yàlla de wuutale guddi ak bëccëg bu ko neexee bi gudd bu ko neexee bi gàtt yàlla subhaanahu wa taala ci guddi ak bëccëg def ci wane ne moom mooy yàlla su yàlla indee bëccëg ana kan ci ñun moom la indi guddi ndax am na yàlla xëccee bëccëg ñëw waa ji am programme ba guddi bëgg mu jot est-ce que da koy neex rek guddi jot moo tax dafa bokk ci mujizatul quran ci ay aaya borom bi subhanahu wa taala di lancé défi di wane ne moom dong moo mën mbir yi kenn mënu ko mu ne bu ma indee guddi kan moo indi bëccëg su ma dindee bëccëg kan moo indi guddi kenn mënu ko pourtant léeg-léeg ay nit def benn programme guddi yàkkamti mu jot waaye li ñuy yàkkamti yàkkamti mënuñoo fexe guddi jot léeg-léeg ay nit def programme bëccëg bañ guddi gi jot waaye bu guddi gi ñëwee dara lañ ci mën kon ixwaan yi lii dafa bokk ci mbir yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom dong moo ko jaayoo ñetteel mooy jaryaanil fulki mooy bato yi daw gi ñuy daw ci géej yi yaakaar naa tey ñun ci mbirum géej li ñu yàlla di ci wax tey jii ñun ñii ñoo ko war a gëm dëgg-dëgg ak sahabatul kiram bi yàlla naan ñu gaal maa ko tàggat mu tegu ci kaw géej di dem nga gis tey ay bato yu yenu ay conteneur di yenu ay avion maanaam lenn saa yi nga gis bato bu toll ne dëkk léeg-léeg ñu ne la benn waaye dafa judd ci bato bi màgg ci bato bi ba dee wàccul suuf ndax rëyaayu bato bi aussi bi passé dégg naa gars yi dañoo loué benn bato indi ko pour dalal ci ay gan wala est-ce que bato ba bato bu ndaw la léeg-léeg ngeen gis bato boo xam ne su taxawee da nga yaakaar ne bi ay immeuble yu taxaw la kon dafa am mbir yoo xam ne ci jamono bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax sahaaba yi dëgg-dëgg ñun ñoo leen gën a aajowoo tey ci gëm ak ñoom ndax tey xam-xam développé na ba wax asamaan ni ko yàlla bindee suuf ni ko yàlla bindee ah xoola diggante guddi ak bëccëg xoola diggante bato yàlla tàggat ko tey boo jëlee birig nga teg ko ci géej birig birig birig est-ce que di nga gisaat birig bi ah nga jël porte-avions teg ko ci kaw bato ci kaw géej boo demee ñëwaat fa nga koy fekk ñoom ñaar bu gën a diis lu tax bato bi suuxul yàlla moo ko tàggat mu ne gaal yooyu nga xam ne ñu ngi ci géej gi ci seen ngandaay daxaamatiha ni ñu rëye ak li muy yenu léeg-léeg nga taxaw aéroport ki port bu Dakar nga gis bato yi di teer la hawla wala quwwata illa bi li ñuy yenu ci ay conteneur sa yaram day daw da ngay gis bato bi li mu yenu ci ay conteneur mën na junni conteneur te day mel ne yenwul dara kon suñu yàlla waxee war nañu xam ne yàlla mooy yàlla rabi mooy inzalihi taala al matar min as-sama yàlla day tourner suñu xel pour ñu xam ne moom mooy yàlla mu ñuy won kéemtaan buy wane ne moom mooy yàlla mooy taw taw dafa bokk ci kéemtaan yi wan ne jullit yi yàlla mooy yàlla waxtu yu ñu nekk kan moo mën a indi taw ak taw ni boroom xam-xam yi jàngalee bu yàlla bëggee mu taw ni muy def chaleur bi muy jële ci suuf yóbbu ko kaw asamaan couverture ko ak niir yi ah la hawla wala quwwata illa billah ba melax bi muy jël di ko ci dugal muy courant bi ndox mi daal di wàcc kon ñu xam ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala sunu borom yàlla mu ngi won ci wàcce taw ne moom mooy yàlla subhanahu wa taala taw boobu ci lay dundal suuf di ci dundal àll bi garab yi forêt bi gën a sëq Sénégal nu mu tudd mooy Casamance garab yooyu kan moo ko jëmbat kan moo ko roose kan moo ko jëmbal kan moo ko roose kan moo ko lëndëmal noonu est-ce que benn boobu la rek ci àdduna bi yaakaar naa bi gën a fatt ci àdduna bi mooy amazon yi garab yi kan moo leen jëmbal mbokk yi kan moo leen doon roose tey bu nit bëggoon a am garab yu toll noonu ne da nga ko jëmbal roose ko est-ce que di nga ko fekk ay xoolal yàlla subhanahu wa taala moo ko jëmbat moo koy roose ndox mi du jeex garab yi màgg daanaka da nga naan àll boobu garab du dee te xoolal sunu borom ci garab yi ni ni ñu saxee di am ay meññeef meññeef yi ñor kenn du ko utiliser muy nëb di wadd di daanu ci suuf yooyu di daanu ci suuf dañuy saxaat bu leen taw bi fekkaate foofu ñu sax loolu nag sunu borom mu ngi ñuy won ci ay aay alquran ne noonu may dekkilee suuf si bu ma ko reyee ma sotti ci ndox suuf si dund noonu laay dundalee ñu dee ñi juróomeel bu ñu yàlla di wan ne moom mooy yàlla mooy tasrifi riyaa ni muy tasaaree ngelaw yi ngelaw li bu ko neexee mu jóge ndeyjoor bu ko neexee mu jóge càmmoñ bu ko neexee mu jóge penk bu ko neexee mu jóge sow bu ko neexee mu def ko ngelaw luy riddi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ñu ñuy saaga ngelaw nahaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sabbi riyaahi fa qaala fi hadisi allazi rawahu ibnu maaja أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب ولكن صلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها yonent bi daf ñu tere ñu saaga ngelaw ñu xas ngelaw ndax ngelaw dafa bokk ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala mooy indi yërmande mooy indi mbugal buy taw taw lan lay àndal ngelaw yërmande la ah léeg-léeg yàlla dëkk bi tàng yàlla indi ngelaw lu neex ñépp di féexlu ngelaw loo xam ne ventilateur sax mënu la koo indil lu sedd féex yenn saa yi yàlla subhanahu wa taala namm alak ay nit yónni ngelaw li fa amma aadun fa uhliku fa amma aad fa uhliku birihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim allahu akbar ngelaw loolu la yàlla jël une semaine yónni ko ci benn dëkk yàlla ne ngelaw li luy sa mission mooy lu yëngu rek na dee lu yëngu rek na dee dara yënguwul lu yëngu rek ngelaw lu yenn loo ci kaw dóor ci suuf gëléem bu demee bay naaw mel ni picc mu am i laaf ah ay guy di dajjeeku ba yenn saa yi fii rek nga romb nawet bi ngelaw li daj buddi benn garab garab goo xam ne bu waa dëkk bi yëpp àndoon bu ko yëngal duñ ko yëngal ngelaw li ñëw buddi ko ixwaan yi juróom-benneel ci wane ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala as-sahaab mooy niir yi niir yi ngeen di gis al musaxar bayna as-samaai wal ard niir yi nga xam ne yàllaa ko tàggat diggante asamaan ak suuf bu ko neexee mu jógee fenk bu ko neexee mu dem sow bu ko neexee niir yi ngeen di gis dañuy toxuwaan fu leen neex ñu dem fu leen neex ñu dëkk yàlla préparé leen pour ñu ñuy indil taw di yóbbu taw bi fu ko neex moom yàlla fu ko neex fu mu programmé mu yóbbu ko fa mu yóbbu ko fa kon juróom benn mbir yi moom la ñu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ci ñaari aay yi nekk sunu kanam waaye lan la ñuy jëlee ci ñaari aay yi en tant que jullit buy jàng alquran lan lañ ciy jëlee bu ci njëkk mooy laa ilaha illa allah fala tasixu alibadatu li gayri illahi taala li annahu laa ilahun xaqun illa hu jullit bi na yëg ne amul benn buur amul kenn kuy yàlla subhanahu wa taala ku dul moom laa ilaha illa allah léeg-léeg ñi bëgg a naxaatee ñooñu gëm waxdatul wujud ñu ne dara amul lu dul yàlla yàlla nee na dara amul lu dul man waaw ñu ne la kon yow yàlla nga man yàlla laa ndax yàlla moo ne dara amul lu dul moom nangu nga loolu ñu ne waaw nangu naa loolu kay ñu ne kon yow yàlla nga micro bi yàlla la miir bi yàlla la
sajaada yi ay yàlla lañ lamp yi yàlla lañ est ce que loolu mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa firiwul loolu laa ilaha illa tekkiwul dara amul lu dul yàlla tekkiwul loolu am na lu am kay ñun ñi dañoo am di suñu amul woon dinañ mi rek fii mbindeef dafa am di laa ilaha illa li muy tekki mooy amul benn buur amul benn yàlla laa ilaha amul benn yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi nekk njëriñ ñàkk jaamu nekk lor illallah lu dul buur boobu tudd yàlla loolu mooy laa ilaha illallah alquran moo ñu wax ne yonent bi fekk na ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett ci kaaba bi bi mu ñëwee ne yàlla kenn la dañu ko lu ko lan la ko lan la ko gay tontu ajaala al alihata ajaala al alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ajab danaa bëgg a def ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett benn yàlla mbir mi ngay bëgg a wax daal mbir mu doy waar kon amul kenn ku ñu war a jaamu jaamu gi nekk dëgg fala tasixu al ibadatu li gayrihi jaamu koo jaamu du nekk dëgg lu dul sunu borom subhanahu wa taala lu tax li annahu laa ilahun xaqun illa huwa ndax amul benn buur ci dëgg ku dul moom buur boo fi dégg mu ne maay buur may ko ay at mu dund bu yàggee ñu ne la bàmmee la ngi nii ana Faat bin Abdul Aziz ana Hasan deux ah ana ñi ana ay lestilaasi ku doon wax maay buuru buur yi ana firawna mi ne woon ana rabbukumul aala bu yàggee rek kuñ ci ne yàlla rek bu yàggee lépp luñ ci bàmmee rek kon du yàlla du yàlla de kuñ ci ne buur la li kis ki naan fa kam min malikin rufiat lahu ala maat fa lamma ala maat fa kam min malikin rufiat lahu ala maat fa lamma ala maat mu ne ñaata nga gis buur bu ñu jël di ko yëkkati di ko takkal garaat di ko yëkkati di ko takkal garaat di ko yëkkati di ko takkal garaat ba waa ji kawe mu ne ba mu demee ba kawe yàlla wàcce ko seen dëkk ko yëgalaat wàcce weesu ñu gas bàmmeel dugal nit di nga di nga nekk ci kaw ixwaan yi ñaareel bi li ñuy jëlee ci aaya yi ñu nar a jàng léegi mooy al ayat al kawniya fi samawati wal ard tusbit wujudullahi taala rabban wa ilahan mawsuufan bi kulli kamalin munazzahan an kulli nuqsaan aaya yi ñuy jàng léegi daf ñuy won ne aaya yi yàlla def ci kawnu bi dafa am ñaari aaya aaya mooy lu lay won ne yàlla am na asamaan benn la day wane ne yàlla am na suuf benn la ci day wane ne yàlla am na day wane ne yàlla mooy yàlla ñaari yooyu rek asamaan ak suuf dañuy saxal ñoom ñaar ne yàlla kenn la mooy yàlla bi ñu war a jaamu mooy yàlla bi nga xam ne suñ koy melal dañ koy melal ci lépp lu mat soril ko lépp lu man lan mooy wane ne yàlla suñu xoolee asamaan lan lañ lan lañ ciy jële lu ñuy wane ne yàlla am na ah bu ñu xoolee asamaan lan moo ñuy wan ci asamaan ne yàlla am loolu benn est-ce que da ngeen a gis asamaan fii ku ne moo ko moom ku ne moo ko defar beneen mooy asamaan dafa am du ko amal suuf dafa am du ko amal jant dafa am ku ko amal lépp lu am dafa am ku ko amal ku ko amal mooy yàlla ñun dañoo am ñu amal Ibrahima bu mu juddoo nekk ci liir comme Firawna Namrud da doon rey liir mu juddu yaay ji bëgg ne mu ne ko yaay kuy sama kuy sama moom kuy sama borom mu ne ko man mu ne ko yaay sama borom mu ne waaw mu ne yow yaay kuy sa borom mu ne sa papa ne sama papa nag ah dañoo nga laaj mu dem ni papa ji ah ragal naa xale boobu ñu doon wax maa ko jur loolu tax nga wax loolu maa posé question yu garaaw mu ne yàlla wax mu ne nañ dem nga déggal sa bopp mu ñëwaat ne ko yi papa mu ne ah ne kuma moom mu ne sa yaay sama yaay ko moom mu ne man yow papa ku la moom mu ne buur bi namaruut mu ne namaruut ku ko moom amul question yàlla rek di taxaw ba ba na yegg ci yàlla subhaanahu wa taala moo amal lépp kon asamaan ak suuf ñaar la ñoo ñaar rek doy na ñu xam ne yàlla am na subhaanahu wa taala buy wane ne moom mooy yàlla yàlla boo xam ne mawsuufun li kulli kamaalin yàlla ku koy melal amoo droit di ko melal lu man lu mat rek yàlla dafa mat mbiram yépp a mat ñetteel bu ñu jëlee ci aaya yi ñu war a jàng mooy al ayat at tanziliya al quraniya tusbit wujudullah aaya yi alquran bi alquran lan la ñuy wan lan la ñuy jëlee ñun ñu jàng alquran bi day bëgg lan la ñu alquran di jàngal ñun ñu dëkk quran laa wa bu dégg bëccëg lan lañ ciy jëlee lan lañ alquran di jàngal mooy yàlla am na boo jàngee quran nga xam ne lii du waxu nit du waxu yàlla la subhanahu wa taala kon alquran dafa ñëw di saxal ne yàlla dafa am pour nga gëm yàlla yow jullit nga xam ne borom bi subhanahu wa taala du lu ñuy wax nii rek lu am la aaya yi dañuy saxal ne yàlla dafa am mooy boroom wa tusbitu ndax aaya yi dañoo ñëw di saxal nekk yàlla nekk ya yàlla kese wala am na leneen lu aaya yi di saxal ah lan nekku yeneen yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yeneen kon du yenn ci yow nga ne waa yàlla di am na ñu ne yeneen da nga ah yeneen yow du am na yow dañ koy xoolaat suñ ci xool ni nga gëmee ne yàlla am na noonu nga war a gëmee ne yonent yàlla muhammad yàlla moo ko yónni alquran moo la ko wax tusbit da koy saxal ne yonent yàlla muhammad yonent la man yàlla maa ko yónni ñeenteel li ñu jëlee ci ay ñaari aaya yi mooy al intifaau bil ayat mutlaqan ayatul kitaabi wa ayatul kawni xaasa bi man yastamiluuna uqulahum duuna ahwaihim ñaari aaya moo am yu lay wan ne yàlla am na benn aaya bi mooy univers bi adduna bi asamaan suuf jant weer boo ko xoolee nga xam ne yàlla am beneen bi mooy alquraanul karim waaye ñaari yi kan moo koy jëriñoo borom xel looloo tax borom bi ne ci aaya yi di ñëw suñu kanam léegi ngeen gis bi muy wane ne moom yàlla mooy yàlla chaque jour bu la jàngalee aaya yi ba pare danaan aaya yi may wax nag ci ciy jëriñu mooy ciy xalaat la aayaatin li ulil albaab borom xel yi la aayaatin li qawmin yaaqiluun ñu am xel am xel tey am na ñu bëree bëri dañoo weddi yàlla te am nañ xel am nañ xam-xam waaye lan moo leen weddiloo yàlla mooy seen xel lañu bañ a utiliser dañoo gëmm ci texte yi lànk bañ a gëm yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi kon ñeenti aaya yi di ñu jàngal juróom-benni mbir juróom-benni mbir yi ñu ci jële ñeenti mbir suñ ñëwee ci texte aaya yi borom bi subhaanahu wa taala mu ne audu billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa ilahukum ilahun wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون من وإلهكم سين بروم إله واحد جل يلا جل وإلهكم سين بروم كلن موم كلن ورا جام كلن بند كلن سك yàlla ji nga xam ne moom la ñu war a jaamu ci dëgg almaabudu bi xaq ah aw bil baatil sax même bu doon caaxaan la sax nga jaamu ko dafa jaadu moom mu sunu borom subhaanahu wa taala kooku mooy wallahu subhaanahu wa taala huwa al ilahu al xaq almaabudu bi xaq mooy yàllaay dëgg moom la ñu war a jaamu ci dëgg moo tax mu ne wa ilahukum seen borom yàlla seen yàlla ñu ne ah mu ne ilahun waahid kenn la de di ñaar du ñett du ñeent du ñetti téeméer ak fanweer kon yàlla kenn la laa ilaha amul benn buur laa ilaha illa allah nafyun wa isbaat day dàq di faxar loolu lañu naan na balaa ngay balaa ngay lal balaa ngay lal loolu ñu ko def da ngay bale balaa ngay lal da ngay bale waaye bis boo ñëwee lal te bale woo doo nelaw ndox doo nelaw lal bi day xajal moo tax balaa nga naan illallah nga ni laa ilaha dégagé lépp ba mu set nga doog ne illallah bu ci biir ñun nag Sénégal dañoo ñëw rek ne illallah fekk dañoo waroon wax laa ilaha ba pare dooga ne illallah mais ñëw rek ne illallah moo tax baaxul tabax sans fondement da nga yendoo tabax ba ngoon boo ñëwee xëy suba nga mere ku lu defal ku la deful dara di nga yàq ciment yàq béton yàq lépp lu tax ndax tabax bi dafa teguwul fen kon laa ilaha ngay njëkk a sam mooy amul dara lépp ngay dindi sànni démb dama xëy rek gis nit ñi di tuur ay paanu ndox ci buntu kër yi ma dama romb nit ci buntu kër gërr gërr gërr mooy ñëw laaj ci ñu ne dafa am ci santaane nañ sotti ndox kër gi nekk nañ sotti juróom-ñaari paan ah kër gu nekk nañ sotti kër gi juróom-ñaari paan ndox xam ngeen lu tax loolu parce que waxuñu laa ilaha dañoo ñëw rek ne illallah ak juróom-ñaari nee naa yi ñu baxal yooyu bokk na ci gis nga nit bu amul fas-fas bu baax sëf la day yomb jaamu loola xërëm day yomb bokkaale loola yàlla day yomb parce que amoo fas-fas bu wér imagine leen juróom-ñaari paanu ndox kooku facture bi lan la nga jël ko amoo loo ko def di ko këpp di ko yàq te yàlla tere yàq ndox moomu tey am na ci sa koñ ñoo xam ne seen robinet dañ ko coupé su ñëwoon ñaan la benn paan nga bañ ci wa sax su kenn ngeen ne demal sa yaay bi mu may ma ndox ci wa mu ñëw may ko fi mu ñëwaat ne may gis nga nag damay fayan nga commencé di ñuuloo kanam nga bëgg a jël juróom-ñaari paan ndox ko ci suuf parce que dañ la ne élection yaa ngi ñëw pour dëkk bi am jàmm nañ sot suuf si ndox suuf si sedd bu suuf si seddee dëkk bi dina sedd Sénégal dëkk bu waroon a baax dëkk bu waroon a jekk mais maala sax nit ñi seen pas-pas yi lañ yàq loolu moo leen wane ba léegi laa ilaha illa allah moo fi dëkkuwul moo wérul ku jël juróom-ñaari paan ndox yooyu sotti ko ci suuf billahi wallahi wa taala yi doo ci jële lu dul fakk yi di ñëw gën a seer beneen amoo dara ba pare te am nga bakkaar parce que yàq nga te yàlla waxoon na wala tusrifu kulu wasarabu wala tusrifu yàlla waxoon na lekk leen naan leen bu leen yàq yow nga ñëw di yàq wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kaanu li ixwaani shayatin wa kaana seytaanu li rabbihi yàlla waxoon na bu leen yàq ndax yàqkat yi ay seytaane lañ te seytaane dafa wetti boroomam beneen mooy ndox du may jàmm loolu Sénégal war na bi leer ñaata nit la ndox soxal seen kër ñaata ah mbokk yi ñaata nit tey jii ñu doon xool Sénégal la moo tax ñu taxaw ñu taxaw Fara Jaxaay ah lan moo taxoon palaa jaxaayam ay kër yu taa lan moo fa taa ndox ba kër yi kenn mënu ko cee nekk kon kay ndox du yëpp joxe jàmm kan mooy joxe jàmm dañu bëgg dëkk bi sedd nañ jubal rek bu dëkk bi jubee bu dëkk bi nekkee ci jub yëpp dëkk bi am jàmm waaye sotti ndox ndox chaque jour bu ñu xëyee Sénégal li ñu leen sotti ndox seen buntu kër yi ñu leen sotti ci oto yi ndox waaye sa jàmm am nañu ak ci buntu bitig yi ah yaay kat bitig yi muy leen kii ci robinet bi laa wax wax na dëgg da ngeen lool wallahi wax na dëgg wallahi wax na dëgg wa ilaahukum seen boroom yàlla ji ngeen war a jaamu mu ne ilaahun waahid kenn la laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi nekk njëriñ illa allah illa huwa kudul moom arrahman moo tas yërmande ci àdduna ñépp a ko am rahmaanu dunia rahimul axira arrahman rahmatun waasa yërmande bu yaatu yépp ci dugg moo tax sahaaba bi mu ne yow yàlla yal nag ma yërëm man ak muhammad bul yërëm keneen yonent bi ne ko day yàq sa alwaasi ata xatal nga lu yaatu dafa ñëw ci jàkk ji daal di saw sahaaba yi jël ay jaasi bu ko rey yonent bi ne bàyyi leen ko ñu bàyyi yonent bi ne sotti leen ñu saw waa ji benn baagu ndox ndeysaan ci ban jàkk lañ sawoon ci ban jàkk lañ sawoon ah jàkka yonent bi bu demoon ba Tiwaawan tey nga saw fa dañ lay def bu demoon Tuubaa saw fa nag doo ñu bis bi ñu dem na ci jàkk yu gën ñaari jàkk yooyu daal fay saw ñu jàkk yonent bi wala da ngeen ci am tukki sàkk ah ñetti jàkk yi ñoo ko doole ci lislaam màkkatal mukarram madinatu munawwar masjidul aqsa yeneen nag yëpp a yem ñetti jàkk yi rek moo tax yéen ñetti jàkk yi doomu ñoo dagana tukki waaye ñun jàkk yeneen bi deuxième jàkk ci lislaam mu taw yonent bi ne sotti leen saw waa ji benn baagu ndox saxaaba yi bëgg a rey waaj ñoom dina bàyyi leen fekk ko mu ñëw ne ko fii kenn du fi saw place yi place bi ñuy jaamoo yàlla la bu gis yonent bi ni mu jëflante moom ak gaa yi ni seen kanam yaa ngi lëndëm ku nekk a ngi xiir mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad mu ne yàlla yàlla nag ma yërëm man ak muhammad keneen sama yoon nekk yonent bi ne ko day yaqta alwaasiata xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan moo yaatu yonent bi ne ko yërmande yàlla dafa yaatu ndeysaan waa ji daal ne ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah borom xam-xam yi doon ci xadis bi ñu ne yonent bi ne sëbi na waa ji ci ñetti mbir sëbe na ko ci safara bu ñu reyoon waaj bu mu jëm safara ci saw ci jàkk ñu rey la safara nga jëm rek mais yonent bi sëbe na waaj ci safara ñaareel yonent bi sëbe na ko ci feebar ku doon saw ñu lay ndulli saw bi day arrêté wala saw yi fa nga dag ko de te boo ko daggee sa naq bi am problème ñett yonent bi géré na ba saw yi tasaaroowul ci jàkke ji dafa ne bàyyi leen ñu bàyyi ko waa ji saw ci benn place ba mu jeex takk mun a jël leen ndox sot ci suuf mu neexa wi fii ci tasaaroowul loolu mooy ne yonent bi dundul tey ñun suñu jàkke ji rek benn waaye ñëwoon xaaf suuf li rek léegi benn waaye set la waxuma laa nag saw ci jàkk mooy yonent bi dundul yonent bi yàlla moo ko yónnee ko wa ma arsalnaaka illa mooy rahma rahmatan lil alamin yow da nga ñëw pour nit yërmande pour xeet yi pour nit ñi dugg àjjana moo tax bi mu ñëwee mu ne yàllaa ma yónni ma ñëw jël sama kaala tag ko sama ndigg pour xeet bi yëpp dugg àjjana kenn dugg safara mu ne ñëpp ay dugg ajana ba mu des ku bañ sahaaba yi ne ko ku bañ a dugg ajana mu ne ku ma topp dugg ajana kon kooku bëgg naa dugg ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg ajana mu ne moom sunu boroom arrahman arrahim rahim alaxira la du fii jullit ñi dong la ko yàlla jagleel foofu ku dul jullit bokkoo ci yonent bi saa sallam dafa am ñaari lu mu làq te mooy mu am ñaari tur yi yàlla tuddee ko ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim gis nga rahim dafa yàlla moo ko tuddee yonent bi saa sallam ndax lan yonent bi ñu ngi ñeewoon ci jullit yi rahim bëggul jullit ñi am jafe-jafe bëggul ñu am problème bëggul benn jullit ëllëg yow man xiyaas ngay taxaw ci kanamu yàlla ñu lay yóbbu ci xaram moo tax ñun léegi ngeen ñu mu sonne pour ñëpp texe ñëpp texe bàyyi na sax ay nit yoo xam ne su doon hasard kese dañ leen war a mbugal mbugal yu nii xoolal yonent bi jàpp ay espion ci biir saxaaba yi mu jàpp ci espion ñun tey suñu mbooloo yi bu ñu ci jàppee espion ku bokk ci ñun 40 ans ci jàpp bi di julli ndóog ñun benn bis ñu yëg ne espion la ni ñu koy def waaye xoolal yonent bi ne bàyyi leen waa ji Umar ne bàyyil ma dagg baat bi mun a ko fekkee na batt bàyyil ma dagg baat bi mu ne ko fekkee na Badr kii fekkee na Badr te yàlla sëpp woon na waa Badr ne leen baal naa leen bàyyil jàmm yonte bi gis ku naan sàngara jullit bu naan sàngara di koy dóor di ko saaga di ko xas mu ne leen laa tuidu seytaane ala axiikum ñun ñu gisoon tey benn mbokk bi tux cigarette lu ñu def parce que ñun xamuñu sunna moo tax kuy naan sàngara laa wax de kuy naan sàngara mu ne leen laa tuinu seytaan ala axiikum moo tax ñun li ñu jàpp mooy diine ñun dañoo ñëw rek mu ngi mel ne nit rek ak takkandeer yow nga ñëw mooy ci takkandeer bi rek defe ne yaa ngi ci loolu mooy sunu mbir xoolal Aba Mahjam danaan naan sàngara ñu koy dóor mu dem gazwatu Mu'tata ndeysaan xeex bi war a commencé mu dem mànd li muy mànd yëpp terewul gaa yaa ngi ko yóbbaale muy xeex waxuñu ki naan kër sàngara la duñ topp yow dooñ topp parce que da ngay maan dooñ topp te gëmoo yàlla doo suli da ngay naan waxuñu ko loolu te saxaaba la te lu gën a doy waar mooy ñu dem ba xeex door a commencé mu màndi gars yi jël ko yeew ko ne amuñu jot tey dóor la jël ko dugal ko ci benn ruq yeew xeex bi départ rek mu dégg jaas yi kën fas yi yuuxu màndi bi daal di naaw mu naan dañuy liggéeyal l'islam yéen may tëj fii dañuy liggéeyal yàlla ngeen may tëj jigéen ñi ñëw ubbi amin bi dafa feebaroon ñu jox ko fasu amin mu jël jaasi amin mu maska kanam bi ba kenn du ko gis ñaari bëj rek la génn waaye xam nga lan moo leen jaaxal mooy biñ ko séenee muy ñoo fas yéeféer bu mu dab rek nga nekk ñaari xaaj bu la dab dee jaasi rek nga nga nekk ñaari ŋal jaas yi dalay rey ba dagg fas bi xeex nekk amir mu kaw di ko séen di xeex bi jeexee mu ne mu dugg ci biir mbooloo mi mu xool ana waa ji mas kaw woon gisul kan la mu yaakaar naa sax am malaaka la bu yàlla envoyé woon pour nañoo dimbali gaay ba ci yàgg ñu ne ko looy seet amir mu ne waa ji mas kaw woon ñu ne abaa maa jam na mu ne déedéet mënul nekk abaa maa jam parce que abaa maa jam dafa màndi ñu ngi ko tëj mënul doom gaay ne ko moom la mu ne nañ dem seet ñu ñëw fekk waa ji xeet bi jeex na ba daw na gaa yi jëlaat nañ ko yeew ko mu ne nii daa di toog mel ne ko xeexul woon Saad ibnu Abi Waqaas ñëw daa di yëkkati mbag bi ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko da nga doon naan ñu lay dóor mu ne ah mu ne boo fi mandeetee ku la laal xam mu ne ha mu ne ma ne boo fi mandeetee ku la bari ba la nit laal mu ne ah comme dama doon màndi ñu may dóor bi fii ci tey araamal naa sàngara doon ma ko naa def ne nit ñi dañoo war a teey ñooñu ñor suñu jaasi rek suñu neex ñu dugal suñu suñu neex ñu génn ku ñu neex ñu ne pas-pasam wér na ku ñu neexu ñu ne kii pas-pasam wérul ku ñu neex ñu ne jullit la ku ñu neex ñu ne yéeféer la boo gisee waa ji xaqataay sax
waaw war nañ la xoolaat
kenn ma bébee allah jur gi dem métti na de danañ yàlla jubal parce que lépp ko waral rek mooy ñàkk jàng siira ndeysaan bu ñu jàngee siira danañ gis yonent bi saa salaam euh, mbir yu bare bari mu nangu ko te bu doon ñun duñ ko nangu xool leen sulhu Hudaybiya yéeféer yi bi ñu ñëwee yonent bi di bind lees pacte ak ñoom mu ne Ali bindal Ali bind bismillahi rahmaani rahim yéeféer yi na ko bismillah waaw bind Ali ne man ma bind bismillah di ko dindi te ndeen dof yonent bi ne ko Ali man la yàlla yónni bind ne Ali ne man du ma ko dindi yonent bi ne ko fan nga bind bismillah yoo xam nga yéen daawul léegi mu ne mi ngi nii yonent bi teg sama baaraam mu teg yonent bi effacé ko mu ne yéwéer lan laa bind ñu ne ko bindal min Muhammad mu bindal bu wér rasulullah ñu ne ko déet duñ gëmoon na yonent ko duñ xewaale min Muhammad ibn Abdullah wala muy nangu loo xam ne li gën a garaaw nag ñu ne ko ku jóge ci ñun ñëw ci yow da nga koy delloo ku jóge ci yow ñëw ci ñun perte la yon di mi nangu xam nga dox mu nangu nga xam ne ne ci kenn du ñëw di jël di dellu fee nit dina ñëw diine leer ci yow islam bu teg wit nga koy bàyyi di delluwaat fële mu ne mu ne waaw nga xam ne lu du am maanaam ma ne ma ne yonent bi nangu na ay mbir yoo xam ne bu doon ñun ñii rek koo nit yi ordinaire yi kii la jant bi di sàkk mais kenn du doo ko nangu pour yow te encore yow deuxième yow da nga naan loolu kufru la mbokk yi sunu borom nee na inna fi xalqi samawaati nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan wal ard ak suuf wa xilaafi leyli wan nahaar ak wuutale gu muy wuutale guddi ak bëccëg wal fulki lati tajri fil bahr ak gaal bi yàlla tàggat muy daw ci biir géej di daw ci lan bi maa yanfau naas ci liy jëriñ nit ñi njëriñu nit ñi yii yëpp yàlla nee na bu ñu koy càmbar danañ gis ne dalil buy wane ne moom mooy yàlla inna fi xalqi samawaat nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan allahu akbar asamaan yàlla daf ñu laaj ci quran a antum asaddu xalqan amin sama yéen yéen a gën a tar bind wala asamaan xalaq as-samaawaati wal ard asamaan ak suuf lan la yàlla njëkk a defar asamaan xel nangu na lool dal bi tiim ñi su ko doon raar fan la taxaw ci suuf dañ ko defar ay bal wala ay échelle bu yëg di raar est ce que xel nangu na kaw amul nga nekk ci kaw naan da ngay defar kaw xalaq as-samaawaat ba pare wal ard asamaan la yàlla njëkk a defar defar suuf xool leen asamaan bi ñu ko defaree bu léegi ak la fa nekk ci ay étoile américain yeeg anglais yeeg chinois yi ñu ngi naaw guddi bëccëg barki démb lañu doog a trouvé ndeke ñoom fi ñu doon dem mooy côté bi jàkkaarloog jant bi am na beneen côté boo xamante ne ñu ngi koy doog a trouvé côté bi jàkkaarloog jant bi mooy fii suuf su nekk nii foofu dafa suuf suuf la am ku beneen côté bi ay montagne xeer ñoo fa nekk loolu démb laa ko seetaan tele matagul un mois ah dañ li ñu maa bu kan entre ndeke benn partie sax lañ gis ñu xoola asamaan li fa nekk ci ay étoile yàlla subhanahu wa taala ni ko bind xam nga ñun lu tax mun ñu am yooyu xam-xam parce que ñun dañ naan la yàlla bind asamaan rek fi nga toog sax dina jàkka ñu looy jàpp ji bu bula bu nekk ci kaw leen peinture bu bula d'accord ñun ñëpp ah ñun ñëpp noonu la ñu ne yàlla moo bind asamaan lu tax kenn jóg gëstu ji lan mooy asamaan te tey da ngay gis koo xam ne loolu rek la jàng ci la am doctorat nga gis koo xam ne ci la jeexal dundam te ba léegi jeexalagul ñu ngi ci asamaan rek jeexalagul nga gis koo xam ne suuf sii la suuf rek la jàng moom jàngul asamaan moo ngi ne asamaan mu ne foofu jàng suuf la mu ne wuu kaay moo la ci ñaata façon suuf kaay ma wax la diggante bi kaay ma wax la pepp suuf yi pepp yi ñaata façon pepp suuf moo am
yow nag bu ñu la ne bu yàlla ne inna fi xalqi samawaati wal ard nekk na ci bind bi ma ko defar ah yow bu ñu la ko waxee suuf si sax doo doo doo doo yëngal sax sa yaram xam nga ñun dundam du hasard rek yàlla mun nañu inna fi xalqi samawaati wal ard nekk na ci bind bi ma bind asamaan ak suuf moo tax da ngay gis ñee dañuy dem di gëstu di gëstu di jàng ñaata façon suuf ñaata façon montagne ñaata asamaan ñaata étoile moo fa nekk benn bu ci nekk vitesse bi muy daw benn bu ci nekk lumière bi mu am benn bu ci nekk lan yaram day aw ah diggante diggante yi kon nekkee yàlla du hasard rek mu ñuy gestuloo asamaan du hasard mu ñuy gestuloo suuf waaye waxti laa fi leyli wan nahaar diggante guddeeg bëccëg rek jaxase bi ko yàlla di gën jaxase du hasard yàlla du ñoo xool leen lamp yi di tàkk suñ ko bëggoon fay léegi danañ dégg son bu kenn demoon ci contact yi léegi di bëgg a fay danañ dégg son wala guddi buy ñëw doo dégg benn son bëccëg buy ñëw doo dégg benn son te guddi buy ñëw kenn mënu koo téye ba ne guddi doo ñëw gars yi jàpp leen fële bu mu ñëw de bëccëg bëgg a ñëw kan moom non affaire yi day yàqu dañ fekk dëkk guddi bi bu mu ñëw waaye kay kan kan allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala kon du hasard bu ñuy woon yooyu maanaam lii yàlla dafa bëgg ñu jàng ndax lii rek la mu ne waxtilaafi leyli wan nahaar wal fulki allati tajri fil bahr ak gaal gi nga xam ne bato bi nga xam ne mu ngi daw ci biir géej lan moo tax muy daw bi maa yan fa un naa ndax njëriñu nit xool leen géej gi tey lan moo ci njëriñ njëriñ xool leen conteneur bi maa yan fawul naas waxul bi maa ye durul naas de lii lor nit bi maa yan fawul naas waxul sax tey bu ñu doon xool rek waxuma sax bato yi di daw ci géej te loolu la ñu yàlla di wax fii mais xool leen géej ci boppam rek dañ xool géej ci boppam ah géej moo ëpp aduna moo ëpp suuf te xam nga loolu daa même géej moo ëpp suuf Allahu ba léegi nii am na lu ñu xamul ci biir ba léegi te rabu àll yi fa nekk am na ci yoo xam ne bu fi ñetti génnoon rek doomu aadama dootul def Souleymane dafa mos a wax yàlla yàlla damaa bëgg nga dundal nga may ma ma dundal adduna bi xam ngeen Souleymane dafa amoon doole ñetti buur ñoo mos a gouverner adduna bu ñu nee adduna nag yenn saa yi kenn xelam dem ci Sénégal waxuma Sénégal de waxuma Afrique waxuma Asie waxuma. Europe waxuma Amérique waxuma dama ne ñetti buur ñoo mos a gouverner àdduna Souleymane ci la ko wala juróom-benn ñetti ñu jullit ñetti ñu yéefar Souleymane ci kenn ci ñoom la bokk mu ne ma yàlla may ma ma dundal àdduna yàlla mu ne Souleymane am nga doole de yow mënoo ko de yow yàlla bàyyi ma ne doole yàlla mu ne mënoo ko Souleymane di insister ak yàlla weer mu ne mënoo ñaari sanan mënoon ñetti fan mënoon benn fan yàlla mu ne Souleymane mënoon may génnal quatre kilomètres carré Souleymane teg ko ay tur yu ëpp tur tur yu yu ñu koy toog ba yegg Souleymane daal ne yéen jaam yàlla yi ñëw leen man maa leen di benn mbindeef moo génn ci géej ñëw lekk taabal yeeg cin yeeg kudd yeeg paaka yeeg lépp ba pare ne ko Souleymane ragalal yàlla benn nga ma jox te lii yàlla ñaar la ma doon jox te ne ko ne Souleymane mu ne amu ne ko ragalal yàlla ci man lii nga ma jox nii benn nga ma jox yàlla ñaar la ma doon jox te ñeneen ñi lekk bi dama mës a taxaw fii rek mu gis benn 16 21 xam ngeen 16 21 bu ñu dugal benn jën jën bi bopp bi mu ngi ci bopp 1621 bi jën daa ngi lakk ci suuf jën baa ngi xees 1621 bi bay naan ñi oto bi di jën mu naan ñi oto bi oto bi jën jën benn jën bu gudd guddaay 1621 ba jën gi di laal suuf mu rëy bay wàcc ci côté te benn ñaataa nekk ci biir géej gi géej gi mais benn géej rek moo am ñooñu de bu ñu génnoon fii doomu aadama yi ñëw ba léegi ñun xamaguñu yàlla de te loolu géej kese la xool leen àll bi ñaata àll moo am ci àdduna xool leen gaynde yi gaynde lu muy lekk yàpp yàpp rek te du lekk yàpp bu bu nëpp bu fanaan bu bees rek te ree la ñu ne la gaynde gi am na fi juróom fukki at benn gaynde kese la ci ay kilo te bis bu nekk mu xëy lekk te liggéeyul fenn du grève du dem fenn du marche te mu ngi lekk yàpp wa min dabbatin fil ard illa ala allahi yàlla mbaa ko assuré illa ala allahi fu mu mën a nekk day lekk fu mu mën a nekk léeg-léeg ngay gas suuf ngay gas sax ba caag nga dugal peel bi saan nga gis nga ndum sax génn ci suuf si daan yéeg sax moom fu mu doon lekk ah fu mu doon naan te mu ngi dund parce que mu ngi mu ngi waññax waññax yi te gisoo ndox gisoo lekk gisoo mburu gisoo bër gisoo kafe lu muy lekk foofu fa toll noonu kon yàlla mooy yàlla mbokk yi yàlla mu ne gaal yi wal fulki lati tajri fil bahri lu tax bi ma yanfa'u nnaas gaal gi lu tax muy daw ci luy jëriñ nit dem leen aéroport rek yéen dem leen ci port ci loolu moom kenn war la ngeen gis ga conteneur yi nga gis benn bateau bu yab mille conteneur à gauche ah allahu akbar nga gis bateau boo xam ne ay conteneur kese kese kese la yab bu yab nit bu yab benn conteneur loolu yëpp lan la maa yem fa um naan ci liy jëriñ nit doomu aadama nekk ci kaw suuf di ko yàlla tàggatal ko géej ay bato di ko daw di ko génneel njëriñ moom mu nekk ci di fo wala léegi nii doomu aadama di fo de yàlla tàggat bato yi bato yi di ko indil ay xéewal maa yem fa um naan ci liy jëriñ nit ah mu ne wa ma anzala allahu ak li yàlla wàcce maa li yëpp day wane ne yàlla mooy yàlla asamaan suuf wuutale guddi ak bëccëg bato yi di daw wa ma anzala allahu ak leen yàlla wàcce min asamaai ci asamaan min maa in ci ndox mbokk yi taw yi taw bu tawoon ba pare ñu ne kenn na ko fay ci ñun facture yi nawet bu nekk ñaata ñaata ñaata millimètre la yàlla di taw allahu akbar wa ma anzala allahu min alsamai min main allahu akbar ndox moomu fa ahya bihi l arda bada mawtiha da ngay romb léegi àll bi boo demee yëf yaa ngi wow yëf yaa ngi wow lépp a ngi ñuul mu ngi vert ah mu ngi mu ngi mu ngi ñuul foofu lépp wow dara dundul mais boo toogee ba nawet soo jógee ni lijaar dootoo gis dëkk bi ndax ñax yi fa ahya bihi l ard bada mawtiha ah allahu mu ne wa basta yàlla subhanahu wa taala farraqa al arda moo tàqale suuf si wa nasara fiha mu tasaare si min saairi anwaai dawaab wa basta mu tasaare fiha ci suuf min kulli dabba ci mboolem luy dukkat doomu aadama sax ci la bokk doomu aadama daaba la de xam nga yow ne tey da nga yaakaar ne yaa gën fas yaa gën mbaam yaa gën xar yaa gën yaa gën yaa gën ci daaba yi nga bokk de am na aaya bu yàlla naan daaba yi umamun am saalukum misaal lañ um ñun ñaata daaba moo am ci doo bi kan nga koy compté ah rabu àll yi dox ci kaw si ñaata lañ kan ma ko am balaa ngay xam loolu nawet jot day gis seen yeneen façon gunóor ak ay rab àll yu mus di gis dëgg yàlla nee na wa basta fiiha man yàlla maa tasaare ci kaw si ñun kulli dàmm ci mbooleem dàbba yi man maa yàlla maa ko tasaare kan ma mën loolu te xool leen ñooñu ñëpp ñu ngi lekk ñu ngi naan wala monsieur ñu ko ñu ñooñu ñëpp a ngi lekk ñoo ñëpp ñu ngi ci ay ay ay léegi fanaan ñu ngi feebar ñu ngi wér ñu ngi faju wala loolu te aalam la de rabu àll yi aalam la adduna moom la njanaa yi waxuma loolu de picc yi yoom tamit beneen adduna la nga dem ci malaaka yi beneen adduna la nga dem ci beneen jin jinne yi adduna la nga ñëw ci nit ñi adduna la kon kan mooy yàlla ñu ngi ñu ngi xalaat yàlla ñu ne yàlla yàlla yàlla yàlla ñu ne nga oyofal yàlla loolu mooy ñu ñu di problème su ngeen déggee yàlla naan innama yaxsha allah min ibadihi ñi ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy borom xam-xam yi parce que dañuy jàng ñu gis ñu xam ñu xam ne lii dëgg dëgg yàlla rek moo ko mën dëgg yàlla mënoo ko maanaam misaal yi ñu doon joxe léegi ñu tàmbalee ci asamaan ñëw ci suuf ñëw ci wutale guddeeg bëccëg ñëw ci gaal yi ni ñuy dawee ci géej nga ñëw ci asamaan ndox mi fa yàlla di wàcce nga ñëw ci rabu àll yi ni leen yàlla tasaare maanaam yii tey buñ ci doon jàng benn bu ci nekk duñ ko jàng benn at benn bu ci nekk ci ñun duñ ko jàng ñaari at maa dañuy xëy di jàng ba dee benn duñu pare benn bi laa wax de benn xoolal yi yàlla diñ ko tënkal jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii yonente bi ñu koy wax yonente ba université la jàngee bi waaw mu ne yonente bi yàlla yonente la yàlla suñu su ñuy di la di tourner sa xel pour nga xalaat ci asamaan xalaat ci suuf xalaat ci guddeeg bëccëg xalaat ci gaal yi bato yi ni ñuy dawee est ce que sahabatul kiram mu mënoon nañoo xalaat ay gaal dina am yoo xam ne dana yenu ay mille conteneur ci kaw suuf jamono bi yonente yoo xam ne ndax ñoom xalaatoon nañu xoolal yow tey da nga koy jàng léegi nga ñëw taxaw léegi waxuma sax laal léegi boo demee léegi gars yi dina démontrer di la démontrer di la wan science di la wan affaire yi xam-xam bato bi luñ ko defaree weñ yi nangam yi ni mu yéene conteneur yi ñaata lay daw ñaata nangam ñaata lii ah taw bi léegi nga ñëw ñu lay wan taw bi nu muy taw nu muy wàccee su yàlla bëggee mu taw nu muy def di la koy jàng dangay gis ci jàng lii lépp ba pare nag daal di weddi yàlla saxaaba yi ñoom dañ leen ko wax rek ñu gëm ñoom lañ ko jàng rek gëm xam ne yàlla mii dëgg dëgg def lii moom dong lañ war a gëm moom dong mooy borom doole amul kenn ko am doole ku dul moom ndax loolu kese la daaba yi kese déedéet mu ne wa tasri fi riyaahi ak ni ñuy yàlla di tasaaree ngelaw li ngelaw ngelaw li ni ko yàlla di tasee bi ixtilaafiha ni ko yàlla di wëree marra mu nekk saba marra mu nekk dugg fa marra mu jóge simaal marra mu jóge xar marra ñu ko neex yàlla jële ci ngelaw ñu ko neex mu def bu ko neex mu def ko benn ngelaw bu ko neex mu def ko ay ngelaw waaye benn ngelaw baaxul moo tax yonent bu fekkoon ne benn ngelaw mu ne allahumma ijalha riyahan wala tajalha rihan yàlla yàlla ko def mu nekk ay ngelaw buñ ko def buñ ko def mu nekk benn ngelaw jàngeen sax ñu yàlla alagoon fa uliku bi riihin benn ngelaw mu yonent bi saa sallam bu bu asamaan tiinoon ngelaw li commencé yonent bi day mel ni jigéen bi mag xam ngeen jigéen bi mag kan yéen ba mos a dëkk jigéen bi mag ku ci yéen moom ku ci yéen kan yéen moo dëkk bi moo mos a dëkk jigéen bi mag jigéen bi mag du toog ci kaw lal du toog ci fauteuil du toog ci banc lu muy def day jaawante di def bàyyi bi yenn saa yi mu toog yenn saa yi mu jóg yenn saa yi mu tëdd yenn saa yi mu waññaam lii rek lay def nii yonte bi bu asamaan fii noonu ngelaw li ko maa yonte noonu lay nekk yaa ngi ko yonent lu xew waa aat yii la woon asamaan kii ñi dafa ne day toog di ko dugal muy ba asamaan si commencé taw bu commencé digg duni commencé mu ne subhaana alladi saxara lana déedéet subhaana man yusabbihu rabi wal malaikatu ba asamaan si commencé taw mu ne allahumma sayyiban nafian moom lépp dafa am lu muy wax ci jënu am na lu muy wax bu taw bi commencé am na lu muy wax bu taw bi jeexee am na lu muy wax gis nga waaye ni bu Mbaagamaan xiinee booy dañuy dem soli suñu guddi jaar ci mbedd yi am yàlla may ma ma te jëw de
su bañee taw nag
ba moo gën a danger su bañee toog Sénégal nee dañuy baaw naan nan la ñuy baaw naan yonent bi saa sala mu doon baaw naan dem julli ñaari rakk julli baaw naan daal di ñaan yàlla daal di wëlbati taalaam waaye ñun yàlla nañu yàlla yërëm ñu doon wuteeg diine mën nañu am problème
yàlla subhaanahu wa taala mu ne wa tasrifi riyaahi ak tasaare gi muy tasaare ngelaw li
lu ko neex mu jële ko wuutale ko wa sahaabil musaxari ak niir yi mu tàggat niir yàlla moo leen tàggat ko la niir lii dalil yëpp juróom benni dalil la di wane ne yàlla mooy yàlla lii mu wax ni kenn mënu ko kudul yàlla kenn mënu kan nga mën a defar asamaan ku defar suuf kuy wutale guddeeg bëccëg gaal yi di daw ci géej kan nga ko téye
asamaan si ndox mi muy wàcc ah yenn saa yi gars yi ndeysaan ñu bëgg mu taw ba duñu am taw ñu dem jëlee ay avion ne ko fetalal asamaan ñu ne bu fetalee asamaan si rek taw bi taw yàlla moom ñu doyaat
yii yëpp dalilun ala qudratillahi taala buy wane ne sunu borom subhanahu wa taala moom mooy yàlla wa sahaab ak niir yi almusaxar yu ñu tàggat bayna samaa diggante asamaan wal ard ak suuf gis nga ndeke niir yi nekkuñu kaw asamaan niir yi fan lañ nekk
diggante asamaan ak suuf ñu bari ci ñun niir yi la ñuy gis soo yéegee avion da ngay gis avion yi di dugg ci niir yi nii ba dootoo gis dara lu weex tàll wala lu bële rek ngay gis wala lu ñuul li ngay gis avion yi di dugg ci niir yi sa yaram day daw nga xool ni verre yi tuuti dara lu dul weex mel ne puuti
nga gis ko muy dem muy dem xam ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala mu ne yii yëpp la aayaatin kéemtaan la ay dalil la li qawmin ñeel ay nit yaaqiluun
yu am xel
borom xel day xalaat ci bi borom xel borom xel yi la yàlla di waxal ci ñu xool asamaan xool suuf xool guddeeg bëccëg xool bato yi xool ndox mi wàcc ah su wàccee yal lan lay liggéey xool daaba yi nekk ci kaw suuf àll yi daaba yi xool ngelaw li xool niir yi
kaa ne na li la aayaat li qawmin yaaqiluun gis ngeen xam ngeen yàlla lu tax mu utilisé baatu yaaqiluun ci lu tax
lu tax yàlla wax ay ba pare jeexale ko lii pour borom xel yi lu tax yàlla jeexale ko foofu parce que science la yor
ay preuve la parce que science lay wax xam-xam lay wax xam-xam fan mooy base bi xel
moo tax yàlla wax ak borom xel yi pour seen xel yi yëngu ñu xam ne yàlla mooy yàlla lii nag day wane ne yàlla mooy yàlla
wax ak wax ak borom xam-xam yi ba aaya bi di jeex mu tëje ko ne lii borom xel yi ñoo ciy xalaat
donc munoon na wax ne la aaya bi ne xaw mi ñu ngi waaye déedéet gis ngeen foofu aaya yooyu yàlla dox le xaw mi ñu ngi bu ñëwee rek da nga xam ne yàlla loolu la war a wax fii
ci yàlla borom xam-xam yi lay wax
te xam-xam mu ngi tegu ci xel moo tax aaya yi si jeex mu ne la ayaati li qawmin ya'qiluun ixwatal iman mbokk yi ñaari aaya yi wa fi hadihi l aaya assitta ci juróom benn aaya da kéemtaan yi akbaru burhaanin dinañ ci jële li gën a rëy ci ay màndarga wa aqwa dalilin li gën a dëgër ci ay dalil yu ñuy tegtaloo ala wujudillahi taala ne yàlla am na seen war ko ci ci sax
ne moom yàlla moomu aussi ci amam yëpp
ku am xam-xam la moom yàlla boroom xam-xam la lu tax luy wane ne yàlla borom xam-xam la yii ñu wax sànq kan moo ko mën a defar sa moo xam-xam lii rek boo jël ñu ne ñu ko defar am na xam-xam lii am na ko lii ñuy waxee rek looy wax ñu ko defar lii rek ñu ko defar looy wax kon ki defar asamaan la ki defar suuf nag ki defar guddeeg bëccëg nag kon lii day wane ne sunu boroom subhaanahu wa taala boroom xam-xam la waaye day wane ne moom dafa am kattan ku am doole mana jàngeen yàlla mu ne wa ma qadarullah haqa qadar nit ñi màggaluñ yàlla ni ñu ko war a màggale xoolal ci def yi lépp doomu aadama di ko gëmal waaye day wane ne dafa xereñ ku xereñ mooy xam ngeen xereñ mooy lan mooy koo xam ne lu mu def rek doo ne ah mu noonu nu ñooy yàlla xakiim dafa xereñ waaye day wane ne moom ko am yërmande la lisa muy wane ne moom mooy rabbul alamin mooy borom univers bi mooy borom adduna bi mooy borom bindi bi rabbul alamin loolu moo tax mu def islam mu def téere alquran mu nekk téere alamin téere adduna bi looloo tax diine bi nekk diine alamiya ah dañ naan mondialisation islam moo leen diine islam diine mondial la ñëpp ko bokk li ñu jullee Màkk noonu la ñuy jullee Sénégal noonu la ñuy jullee France benn la ndax Màkk dañ naan ñaari ràkk la ba France ñetti ràkk la Sénégal moom comme benn ràkk la ñëpp ci yem tolloo moom sunu borom moomu subhaanahu wa taala ilaahul awwalina wal axirin mooy yàllaay ñi njëkk mooy yàllaay ñi mujj mooy seen borom ñi fi nekkoon démb yàlla moom lañ doon jaamu ñi fi nekk tey moom la ñuy jaamu wala rabba gayruhu wala ilaha siwaam amul kenn ku moom ku dul moom amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom mbokk yi aaya yi nekk suñu kanam day wane ne dalil wa yaraaha boroom xel daf koy gis في الآيات المذكورة هو العاقل أما من لا عقل له لأنه أبطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك mu ne aaya yi ñu doon wax boroom xel dëgg dëgg lay waxal ku amul xel nag yàlla waxul ak yow koo xam ne moom dafa freiné xelam freiné ko jéemul xalaat dara ci li yàlla wax ci asamaan suuf ak mbindeef yi ak li yàlla bind yëpp moom dafa freiné xelam xam nga dafa am ci wàllu doomu aadama yoo xam ne ay idée arrêté lañu am seen idée di développé wu moom waaw xam daal seen xel yëpp ñu ngi ko nangoo xalaatal ci li ñuy def ba lekk li ñuy def ba naan li ñuy def ba tuñ loolu ñett yi rek te yii moom la rabu àll bi def xar bu buggee lekk mi def nga yeew mi def te yuuxal ba ba ngay di lekk mu ne yan moo tax yàlla ba muy xas ñu dul jaamu yàlla mu ne ulaayika kal an'am benn waaye buy sabate mu ne bi yàlla ne ulaayika kal an'am mooy rabaal yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla dafa yow yàlla dañu am question yi lay laaj yaa ngi leen gis laaj ñu ne ko yow nga bind doomu aadama bind bi yàlla ne waaw mu ne nga may doomu aadama xel boo ñu may yaa ngi ne waaw ba pare ngay xas doomu aadama di ko tollale ak ñi waa ji ne mën a yàlla yokk ci ci liste bi ne bal hum adal dañoo mel ni an am rabu àll bal sax ñu gën a tànku rabu àll yi ndax am na loo xam ne doomu aadama yaa ngi koy def rabu àll du ko def am na doomu aadama yi def ci kaw suuf rab al du ko def rab al jomb na koo def am na xaj yoo xam ne dañ leen jël tàggat leen ay muus yoo xam ne dañ leen jël yar leen ci biir kër yi fu ñu ñuy kër yi di tëdd ci saal yenn saa yi sax ñu dem ba ci kaw lalu borom kër yi waaye bu jugee dem biir ñu ne ah def la ñuy def daal di ñëwaat nag kër yi loolu parce que civilisé nañ gis nga am maa xoolal doomu aadama yi tey li ñu liggéey li ñu seen biir ah maa xoolal wala quwwata illa billah kon ixwaan yi mbokk yi aaya yi borom xel lay waxal mu ne ku nga xam ne jëfandikoowul ak xelam du xalaat du comprendre daf ko changé dafa topp ay bànneexi bakkanam kooku xolam day gumba xelam silmaxa noppam yi day tëx lu muy mujj nekk mooy njaay àll rabu àll lay mujj nekk wala iyaazu billah ixwaan yi loolu moo doon dàpp bi tey ci njuum te ñu ngi koy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu